ETDR Events vous présente le 14 janvier fils de Bala Lacrosse drapeau Ousmane Sakal Dieng maire de Sakal ñàkk jariñu Thiatou drapeau Ahmadou Bamba directeur général de l'artisanat deux grandes affiches une même journée ETDR Events le 14 janvier sponsor officiel établissement Touba Darou Rahman Junou Rola Touba Darou Karo Tampico Huile Global Textile Kër Arab Business Modou Xarañ Lo roi des arènes moom mooy dugg si ànd sëñ Massila Diop Modou Lo roi des arènes mooy dugg si Ababacar Ababacar mooy Modou Xarañ Lo mooy dugg si ñëw si magam ñëw si xaritam di kan juróom yi Modou Xarañ Lo mooy ñëw roi des arènes mooy juróom juróom juróom juróom si day métti looloo day métti. bu la mën daal looloo day métti. da ngaa daan am jéem a déglu da ngaa ko daan doxee loolu yaa ngi ko. nan ko may mu toog nanu may Modou Khary Lo mu toog nanu may sapeur bi roi droit incontesté. waaw léegi ni mel ni ñu amul te yaram ngay day jël soxna moo fa dem alquran ni bees na nga toog na nga toog na nga toog ñu bañ ñi dañuy liggéey rek toog leen bàyyi presse bi ñu liggéey. waaw ak leen suuf de toog toog toog combat boobu lañ ko jaaxal. na ñëpp toog na ñëpp toog na ñëpp toog. sécurité bi nañuy jàppale ci loolu waaye na ñëpp toog na ñëpp toog bu paree ngeen soog a nuyoo na toog. voilà. jërëjëf na ñëpp toog. da ngeen liggéey. nañ taxaw nii ñu mën a ko def. dawal sax dawal sax dawal sax moom ngénte la ñëw ñëwul lamb nañ arrière du moom. presse bi nag lii rek am loolu sañ ma ko wax. presse bi lii rek la ñu am. léegi na ñëpp toog. xaal xaal xaal mën naa jot lii xaal Modou Modou Modou. Massi la nee na mu ngi lay gërëm. di la sant ci kóol rek nga am. am nga tekki tey jii ba tekki mois de janvier yàqu benn yoon nga am parcelle nga def ku nekk xam na ni parcelle nekkul woon nekkul woon waaye imposé wu nga waaye ko sëñ bi sëñ bi waaw kay kam fa daw jóg léegi Modou yaa ngi ci yoon tàpp yi nan la mot loo gën a mu ngi nuyu mbokk yi gars yi may leen waay papay papay Massil laa ngi noonu. papay Massil la moo nekk noonu. papay Massil la moo nekk noonu. public bi dinaa koy pour la lay saraxa di wàcce looy kaamil jërëjëf jërëjëf léegi ñu toog àggale liggéey bi may léegi tuuti ñu àggale liggéey bi ngi nuyu ñu fi fekk ñëpp moom Modou Lo nee na mu ciy jiital Masila mi nee na seen teewaay fii war ngeen a xam ni moom du fi gàtt nee na nee na Massila seen nit la nee na lépp lu mu nekk ñu ngi ci nee na moo tax Massila lu mu nekk moom it dañ ciy nekk. moom nee na devoir rek la def ñëw teew si tudd seen doom ànd ak délégation bi mu ràndal yëpp. nee na liir bi ñu tudd te tudde ko Seydina Mohamed yal na ko yàlla barkeel. nee na te mu jël turandoo jikkoom ye turandoo jikkoom yëpp yi nekk ci moom mu jël ko. nee na mu ngi sant Masila di ko gërëm. xamante ni am na ko ci moom ak ci équipe bi yëpp. nee na mu ngi wax ni Massylla mi toog day sonn ci ñoom suba ngoon guddeeg bëccëg. nee na yàlla suñ borom mi am fay yàlla na ko taxawu te sàmm ko. na sàmm njaboot yëpp incha allah. Modou nag ku nekk xam nañ day dem ci takk. yaaram Gueye mooy jël soxla te amul temps waaye bala moo dem ñaanal ma ndax maa moom xame nañ. mas la nee na ginnaaw bu ñu sante yàlla julliwaat ci yoon tam bu tedd bi alayhi salaatu wa salaam. nee na am nañu mbégte lool. nee na Modou Lo mi toog seen rakk la. nee naa kër Bakar giñ dëkk nee na benn rek la nee na ak kër Sala dañoo ñibbi rek nee na ñoom dañoo ñibbi rek li ma waxoon ñibbi naa sama gox laa waxoon nee na li ma waxoon ni ñibbi naa rek nee na deret moo ñuy yëngal nee na moom moo ñuy yëngal ci muur mi toog moom xam na nee na moom xam na man xam na nee na moom mi toog mii xam na yàlla xam na nee na yàlla suñ borom xam na liñ liñ ànde nee na ñoom ñaar li ñu ànde suñ borom suturaal nañu na seen borom mu ngi leen di nañ gën a suturaal nee na yàlla leen yàlla suñ borom gën a suturaal la ma waxoon rek nee na la ma waxoon rek bëre ba bàyyi bëre nee na bëre ba bàyyi bëre loolu la ñuy ñaan yàlla la ñaan yàlla suñ borom. mu jël koron bi. nee na mu jël koron bi. teg ko parcelle. nee na yóbbu ko parcelle. yal nañ ko yàlla defal. nee na yal nañ ko yàlla suñ borom defal.